comme ni ko sama coordonnateur bi waxee mu nekk monsieur Robane Faye ci suñu diggante ak Djilakh laay ñëw euh, Djilakh comme nu mu ko waxee rek ñun ñoo bokkoon lépp Djilakh njaaraw lañu doon jëlee seko c'est ko kon xam ngeen ni au temps fi nga koy jëlee rek foofu nga bokk kon Jilax ci njaga la bokkoon kon découpage administratif moo ñu xajale ñu boole Jilax ci li nga xamante ne mooy sinja kon looloo ñuy xajale waaye loolu xajale manul xajale mbokkoo kon mbokkoo bu nekk suñu ak diggante ak Jilax kooku yàllaa ko def te defa yag te dugulante ne ñu dugulante bo xamantene yaakar na ni dara mënul dug suñu digante xejna mbir bu xewé propagande dina am nit itam bo buggee defar sa dégg mom di nga jaar fu nek pour defar ko yaakar na ni way ci fofu la doon jema jaar waye ñi nga xam da nga leena fek ñu bokk juddu bokk mag bokk di béy all bi bokk di def lepp ñooñu pour nga dugg seen diggante dina jafe ñun ak waa Jilax même bu ñu doon xeex tey même bu ñu doon xeex tey keneen bu ñëwee te bokkul suñu diggante bu ñëwee dañuy arrêté suñu xeex xeex ak kooku ba mu dem ñu xool nu ñuy régler suñu problème kon dinañu wax Babacar Ngom foofu muy jéem a dugg mënu faa dugg day sonal boppam ñun ak waa Jilax comme ni ko docteur Roban waxeek collectif bu ñuy formé ak ñun waxtaan nañu ñoom dañoo waroon a teew ci conférence bi tey dañoo waroon a teew fii tey mais dañu am ci yi ñu nekk moo tax teewuñu waaye jokkoo nañu ñoom ñu ne bu ngeen demee ngeen wax ñun ñoo ànd ci lépp te ñun ñoo bokk. man mosuma prioriser vraiment benn nit ñëw ñu jox ko priorité par rapport à toute une population d'un village lu ñuy wax. béykat yi nañu bay mais Babacar na depuis plus de 40-50 ans nañ leen fu bay Babacar dem seeti feneen il est seul une personne à titre individuel tout un village ñu ne village ñu seeti nañ leen feneen Babacar Babacar ne euh, en tout cas lu ñu lo mënti def ak loo mënti wax il faut que nga persister sur la vérité moy mujj su déparé lu muy def ni yépp ay waxi dul dëgg mën nañ ëmb dëgg bi bu muur ko bu dëgg bi kenn dootu ko gis mais à l'arrivée on verra que contre vérité yooyu yépp dinañ di daanu bu vérité bi day feeñ rek su feeñoon fii nag dina feel feneen dafa doy pour que rongañu baadoo la continuer di siim cerey buur wala cere koo xamante ne am na xaalis am na daraja ba pare c'est fini tout ça parce que doomu béykat yi dootuñu seetaanati ñu di lay foqati seen suuf di ko jox kenn koo xamante dafa amalal ba pare c'est fini loolu dootul amati bu état bëggee solution na te accepter titrer les terres des paysans ku nekk mu jox la sa titre foncé ci suuf boo jaayee yaa xam bo demee yobou ko garantie bank ci prêt ya xam bu féké né dang kay andé apport dans le cadre d'un projet d'agrobusiness ya xam parce que ñi bëgg bay yépp bu ñu amé alal tamit am lo loo mënuñu ko defar mënuñu ko def mënuñu ko mënuñu ko mënuñu ko dem uti ji fénen andiko ko souf ci fi la nek ñi ko mom ku bëgg bay tay souf ngay ut mënuloo bay ci ndox mënuloo bay ci ngelew kon ñi mom souf ci ñom ñoo yoré la valeur ou la ressource principale ku ko soxla nag ne bay nga bëgg a jëmee war nga yéene ñoo ñooñu nga xamante ne bi suuf si nekkee àll kenn mënu fa bay seen maam yi ñoo jëloon semmiñ di gor garab par garab garab par garab ba mu nekk àll bu mu nekk tey nit ñi mën faa dem gis ko mën faa bay tey saa il faut que mu am valeur boo xamante ne pouvoir public yi dañ ko ko reconnaître te bañ di continuer doore béykat yi seen seen seen ndóol c'est la seule solution qui vaille nañ delloo suuf si béykat yi te bañ di leen jaay doole di gas ay tranchées yoo xamante ne ay fosse commune lay la may nuróol ay charnier lay nuróol xiifal paysans yi joxuñu leen dërëm jël seen jël seen suuf si nga xamante ne moom rek lañ yaakaar